wa euh, euh, jël suñu doole ànd xale sumbu jum yi ñu war a jaay suñu ay xar jël suñu doole def ko si di xaar na gis gisuguñu client di xaar client yi ñëw. non xar yi seeru fu ñu toll dëkk bi xam nga dañ jógee si ay corona moo tax fu ñu toll nii ñu ngi woo ñu ngi woo nit ñi pour ñu ñëw jënd xar yi moo tax fan yëpp xale yi ma nekkal nii mooy jeune pêcheur sumbu jum yi ñi nga xam ne ñoo topp ngi naaw ñu ngi toog chaque jour ñu ngi fanaan si daral bi pour jàppale ñu si liggéey bi. Ah, xamoo ñun benn benn benn mouvement boo xam ne la ñu dañu am dañu am bureau am lépp jël suñ doole dugal ko si si si liggéey bi bu juddoo Médina dëkk Médina jël suñu bis dugal ko si liggéey bi di di woo nit ñi pour ñu ñëw jënd xar yi ñun ñun xamoo ñun ku ñu xam xam ni ñun ah, leader bi nekk Soumbédioune gars yi xam na ko mi Cheikh Tidiane Ba moom moo war a ñëw jënd xar yi xam ne xale yi ma taxawal nii saa yu wootee xale yi ñëw xale yi jël seen doole defuñu dara duñu sàcc duñu fen liggéey lañu xam bokk nekk ay lébu di dem géej fu mu woote xale yi bàyyi seen liggéey ñëw ànd ak moom di woo madame Bali sa ndoy mu ñëw jënd xar yi. xam nga Youssou Dial moom suñu xarit la yu Dial koo gis xam ni Youssou Dial Youssou Dial Medina la Paate ñu ngi koy woo di woo Paate di woo Sesek ne leen xamal leen seen doomu Medina yi ñooy jaay xar ñu juddoo Medina yoroo Medina ñu leen woo pour ñu ñëw jënd xar yi parce que xam ni ñu ñoo jël suñu doole ñun waa Medina xale yi taxaw. ñoom ñoo jël seen seen kees jël seen bilis def ko nii te fu ñu wootee ñoom mu Youssou Diall mu Cheikh Tidiane Ba xale sumbu jum yëpp jug ñëw ànd ak ñoom ñu bëgg mu jàppale les jeunes pêcheurs sumbu jum parce que tey ñoo jël seen doole def ko nii nañu jàppale madame Ba Lissa Ndoye ñëwal sa sec ñëwal paate ah, ah, ah, paate dañu bëgg ngeen ñëw parce que xam ne sa sec gi doomu Medina moom moom lii